tànk duggoo ko ci duggoo ko ci ci ci enveloppe bi duggoo ko ci bañ gàcce bi moo tax le plus gis yenn village reculé duñ fa yóbbu programme de photo bi nañuy yóbbu ak spécimen bi nga koy xool di ko gis di ko xool di ko gis di ko xool di ko gis ba xàmme ko ba ëllëg nag boo demee ba am problème mu choix nga taxaw di naan noonu kii laa war a jël wala kii laa war a jël ki nga xamante la ki a ñëw si sa kalam mooy ki moom nga yàgg di gis te boobu day mel ni dafay am benn lien boo xamante day nekk bëri na ñuy naan objectivité objectivité mais subjectivité moo ci gën a bëri. Mhm. moo ci gën a gën a gën a bëri pour daaneel daal vraiment man je pense que ni programme am na solo kenn du ci werante mais sénégalais yi fi ñu tool dañuy xool kan moo jiite programme bi ndëgam Awa Diop njaay la wala Pape la bu nekkee Pape Makhtar bi nga xamante ne tappale kese la nekkee Pape Makhtar ba bu la nuyee boo leen ma falee damay jubal ay wax waxi caaxaan képp la ju koy wut kat la du ju ko <laughs> balaa mu nga koy xam nga am mais Pa Assane euh, tey jii donc euh, à quoi bon euh, faire une campagne électorale tey jii bu fekkee ne ñun campagne électorale Sénégal li ñu koy méngale mooy Mumbai. c'est culturel au Sénégal tout se passe ci rythmique fecc ak way la tëgg la ca des dëkk la boo xam ni culturellement sociologiquement il y a deux choses qui nous embrigadent moo di commérage wax ju bare wax lu suñu yoon newul lu ñu dégg lu ñu déggul lu ñu fekkee ak lu ñu fekkewul ak li nga xam ne moo de po mm-hmm. lu sax la si léegi nag cette donne là euh, à un moment donné il va li kaa changé du dara lu dul une rupture drastique bu sincère mm-hmm. loolu nag ay nit dañu kaa incarné tey Sénégal dafa toll ci tendance boo xam ne dañu soxla <coughs> leader un leader wala boog ma ne le leader ki nga xam ni day day day day mel ni Deng Xiang Deng Xiaoping ca Chine. wala hmm. Mao Mao Zedong nekk koo xam day ñëw rek changer affaire yi c'est important. ah c'est ce dont le Sénégal a besoin en ce c'est c'est c'est capital. Oh la ouais. bonne lu tax sànq ma may insister ma naan la hey nanu libéré Diomaye mi mu wax mu dégg parce que dañ ma ne Diomaye mooy Sonko man ma ne Diomaye du Sonko Ousmane Sonko moo la Ousmane Sonko Bassirou <coughs> Diomaye Faye moo la Bassirou Diomaye Faye léegi il faut que Diomaye fay xoolil au-delà de la croyance par rapport à ce projet au-delà de millions de Sénégalais qui croient en ce projet que man mu leer ma ni moo kii ñoo nuroo mais pourtant Ousmane wax na ma ko nee na ma man ni ma mel waa ji moo ma raw moo ma gën léegi nag pour ma gëm ne moo ko raw faw waa ji génn jàkkaarloog man xoolil ma am sensation bi au-delà de la sensibilité ma yëkk ma déglu ko je parle de ma déglu ko ma ne ah d'accord je comprends maintenant parce que on parle de Ousmane Sonko nit ñi Ousmane la ñu bëgg par de là Ousmane fi ne nii waa waajay taxaw ca anglu fële nekk koo xam ne daal kenn xamu ko moom bu tuddee sax Ousmane Sonko ne man damaa bëgg Sonko moom nit ñi dañ koy bëggaale. Mhm. loolu barke la. léegi nag moi ce que je train de dire c'est quoi moo ne waa léegi kon fi ñuy waxee Ousmane. est-ce que Diomaye sax gënul Ousmane dix milliards de fois mais leeru ma xam nga comprendre nga. donc foog ma ma jëflante ak moom. moo tax ma ne la cette campagne il est importante parce que ci même bu dee une semaine il est important que Bassirou wax ak sénégalais yi un futur président doit parler à ñi nga xam ne ñoom lay jiite Mandela les sud-africains dañ ko xamoon. c'est différent tey bu Ousmane Sonko doon génn tey jubal palais ba on ne pas on dit ok. mais mën naa nag nekk un partisan ne man je réfléchis pas foofu la affaire bi nekk le partisan il réfléchit pas le vote affectif dont il parle il calcule pas diw moo ma neex am na ñoo xam ne nit da leen di voteel parce que xaritam la mooy li ma la wax sànq kii xaritam la kii sanu mbokk la kii ñoo bokk li le président Macky Sall à un moment donné le vote c'était quoi mmh. c'était pas dans le contenu ou quoi que ce soit sanu mbokk la mhm. point barre mhm. aujourd'hui nag man li ma ñaan ma boroom te gëm ko yàlla nañ leen libéré ci guddi gi Ousmane Sonko ak Diomaye ba pare loolu day neexal campagne bi ndiiraanu Bassirou Diomaye ak Ousmane seen ndiiraan rek riir loolu moo tax yeneen candidats yi bu ñu ingénieur wul nii kenn du leen dégg dama lay wax lu mel ni midi bu bu candidat bu ci muusul kenn du la dikk parce que riir bi am doole ñaar ñee bu ñu génnee ci campagne riir jaar nii. Mm-hmm. ingéniosité dong xulil 19 candidats yi laay waxal 18 candidats yi parce que kenn ki kële la. 18 candidats yi ku ci muusul. Ah, kenn ki lan la. kenn ki mooy ki kii riir bi topp. Diomaye le riir bi ah. topp coow li Diomaye la. ok les autres tey de Diomaye il est de 75 pour cent ci bruitage ak ci nit ñi jóg bëgg ko jàppale. Mhm. léegi nag may wax ne yeneen candidats yi seen xel ku ci ñawul xel lool bare fee nekk génie. saay boo xefee kenn du la dégg. parce que pour nu déglu sax day doon problème. d' accord euh, Georges dañuy ñëw ci liñ doon wax léegi moom moo di ne. Euh, <coughs> euh, on a vu des waa ñëwal avant ñuy ñëw ci euh, les coalitions balèzes. oui balaa ñuy def coalition balèze xam nga damay ajouter benn affaire si. campagne électorale. Mhm. en tout cas surtout les programmes. xam nga programme yi biñ koy concevoir bi candidat bi commencé di wër dëkk bi di wër Sénégal. Mhm. day teg programme fële. bu demee par exemple suma dëkk njaga ñaaw mhm. xam nga balaa mu fay dem xam na ne lii la gars yi soxla mhm. ak foofu lay accès son mhm. discours bu demee euh, Ziguinchor xam ne waa Ziguinchor lii la ñu gën a bëgg paral leen seen discours boo xam ne peut-être il n'a pas écrit ça dans son programme parce que le programme d'habitude c'est des généralités mais bu bu ñu déggee ne euh, suma waa dëkk bu ñu déggee ne tey diw moo fi ñëw candidat Déthié moo fi ñëw dañu ne ah dañ koy déglu ba xam qu'est-ce qu'il réserve comme surprise wala lan lan indil ban charité la ñu indil mm-hmm. et il en est ainsi pour toutes les autres régions tous autres départements mm-hmm. village wala le plus petit hameau bi nga dugg rek ñooñu dañuy naa ah kii de ñëw na fi waaye lu mu wax yëpp. mais en moins de quinze en moins de quinze jours waaw waaye moins de xam nga moins de quinze jours aujourd'hui mënoo def les quarante cinq def cent euh, combien. quarante cinq quarante cinq départements cinq cent cinquante et quelques communes. sans compter sans compter non maintenant c'est combien quarante six départements. parce que avec avec Keur Massar. Mm-hmm. sans compter maintenant l'extérieur la diaspora. léegi benn candidat mënul def loolu en en quinze jours moo tax ne le reste maintenant ça va se faire à travers les les les les réseaux sociaux. Mm-hmm. ça ça, quand même c'est une nouveauté euh, ça va beaucoup de candidats mais lu gën a am importance xam nga. e ça je crois que ñi nga xam ne ñoo jege candidats yi dañu war a éviter ça c'est-à-dire le discours trop populiste mm-hmm. le discours populiste ça tue la communication sa tue même ton programme mm-hmm. xam nga je vais te donner l'exemple du de Feu Iba Der Thiam mm-hmm. euh, dans les années 88 bu muy naan yéen yéen béykat naa leen wut ay koñ boo nekk di nga am frigo ay mat matelas bu amul fel xam nga yooyu c'est un discours populiste bi nga xam ne nit ki bu ko déggee sax électeur bi day xam ne kii moom def maa bëgg politique xam nga moo tax ñu ne la wolof day wax ne daf may politique. maanaam daf may nax. Mm-hmm. donc l'électeur il n'est pas forcément un attrape ni kii ah il n'est pas nigo excusez-moi du terme. Mm-hmm. xam na li nga xam ne lii bi li nga koy dig nii mën nga ko def et tu vas le mais bu nekk ni rek foo dëkk dëkk boo dem rek nga sànni fa ay kàddu nii nangam nangam dinaa leen defal lii naa leen defal euh, ay micro yoo xam ne comme ni ko waaye jalgati xibaar di ko wax micro yoo xam ne boo ŋaaŋee sax. doo doo sax lu wax bi di génn. <laughs> nga ne que loolu mooy tax journaliste yi votal la yow kay da ngay ne journaliste yi man bi ma ñëwee nga dox leen loo xam ne c'est des c'est des trucs très yi nga xam ne buñ la votalee. un mois après deux mois après nañu mën a jóg ne la yow tu na pas tu, tu, tu n'as pas respecté ta promesse mm -hmm. presque pour euh, revenir à ta question sur les sur les coalitions balaises les coalitions balaises gis nañ ko tey jii est-ce que tey euh, xam nga dañ doon wax euh, le système lanti l'antisystème tey jii ñu bëri tey dañu porter leur choix sur système gis nañu ne antisystème bi ni ñuy euh, sillonner réew mi wala def nañu benn groupe mais gis nañu ñoo xamante ne dañ leen boole woon ci système bi mais ils sont venus rejoindre l'antisystème tey jii est-ce que ça va pousser les Sénégalais à dire que ne soppeeku nañu wala ñoom ñëpp a yem bon euh, xam nga man je ne mesure pas les chances des candidats à partir de la coalition mm. parce que xam nga coalition yi am na ne coalition yoo xam ne danga gis koo xam ne dafay ñëw il va faire du bruit ne man si coalition diw laa bokk si coalition Diomaye mm. président Diomaye laa bokk ñu ne la si coalition Déthié ñu ne la Idriss Seck coalition moo gën a kii fekk kooku pris individuellement mm. am ñoo xam ne pris individuellement maanaam ñu adhéré si coalition bi boo leen jëlee individuellement ils peuvent pas bu ñu waxantee dëgg mënuñ la mm-hmm. indil dix électeurs mm-hmm. mm. seen tour rek moo moo moo fa nekk de mais boo mesuré woon na seen seen poids électoral nga pesé leur poids électoral mënuñ la indil dix électeurs mm-hmm. te il en les toutes les autres coalitions Benno Bokk Yaakaar ngi nii ils sont combien. c'est une méga coalition c'est combien de partis trois cent et quelques partis. mais am na si parmi ces trois cent et quelques partis am na ñoo xam ne yow mosuñu dem sax élection dans c'est c'est juste des leaders de partis comme ça de nom Bassirou Diomaye aussi il faut pas l'éviter coalition bi gis naa si ñoo xam ne. mais eh du ma cité tur mais ñooñu maa leen gën a siiw si dëkk bi bu ñu demoon élection ma dóor leen. Déthié Fall Idriss Seck c'est la même chose bu ñu demee en en euh, la présidentielle de deux mille dix neuf il dit avait une méga coalition oui balèze. balèze cest presque tous les candidats tous les candidats en tout cas. quatre pour cent des candidats yoo xam ne dañ leen recalé woon. oui par le parrainage. Mm-hmm. ñii ñu recal leen pour euh, plusieurs autres raisons. Mm. mais si moom lañ jëm. Mm-hmm. si si it lañ nekkoon. <laughs> malgré tout ils n'ont pas pu battre la coalition de de en mm-hmm. donc euh, le poids en tout cas euh, l'arithmétique. Mm-hmm. boo ko calculer de façon arithmétique ok day dalal xel parce que da nga ne ah man je suis une coalition boo xam ne on est je ne sais pas cent et quelques structures mouvements et partis cent et quelques. boobu xam nga moom ku ko dégg rek day kontaan day naan ah kii de moom ñu mu àndal moom coalition bi am na mu bëri waaw mais xam nga gars yi dañ toll foo xam ne il cherche la qualité il la quantité quantité bi mooy lan mooy le nombre vraiment une coalition boo xam ne di nga cité diw cité diw si mais sans la qualité et ça mm-hmm. ça ça ne sert à rien du tout maintenant pour toll foo xam ne aussi tu n'as pas encore le temps et personne n'a courage là même yow si Abdou Diouf nga bokkoon ñëw si Ablaye ñëw si Macky Sall a ñëw si man. Mhm. kenn si ñoom du ko wax. ku ñoom fi ñu toll nii ku ñëw rek baax na. Mhm. parce qu'ils sont dans l'arithmétique. ils cherchent ils cherchent pas la qualité mais la quantité. d'accord malheureusement. malheureusement pour loolu mais tey jii euh, Pa Matar mun nañu wax ne la mhm. donne a changé les sénégalais autrement tey am na ñenn ñoo xam te ne suñu gisee seen présence yenn kii yi daf leen di porter ci li ma yaakaar. waaw mais euh, déjà euh, xam nga li wane que ni euh, doon dafa changé mooy li Georges Nesta di wax xam nga jamonoy quatre ba quatre-vingt-dix ba deux mille sax yooyu les discours da doon jàll mooy que Abdoulaye Wade yu mu doon wax université naa leen defal ay robine yoo xamante ne boo ubbee ngalax génn ak yu ni mel. Mhm. malheureusement Madické Niang il l'avait pas compris ba muy jéem. discours Abdoulaye Wade yu yàgg yooyu nit ñi dañ ko doon. dañ ko doon mbalak voilà 2019 mhm. du moins. ba dañ ko doon mbalak parce que ba muy naan maa dem fii toj fa rajax parce que jamono yooyu moom li mu doon fàttali